ñu ñu tuumal ko. Mm-hmm. soo ko ne nañ dem ci koromaak. Mm-hmm. moom bu amee fit ñëw. Mm-hmm. ma jël samay bagage mu nangoo koo suuru. wala mu toog ci néeg bi ñu taal ko saxaar si bu duggee. seytaane bi nga xam ne moo nekk ci moom. di def tojaange yi. kooku moom day day day yéegul ndax. Eh, wax naa ko boo ko laajee ñoom Babacar yi wala Aliou. seetal naa fi nit ne ko ombo bo am mu dañ ma ne ko omb bi dey sa jëkër moko def hmm? fekke dafa am xaj bu mu doon gént sa ay ko xaj bi maté ombo bi dey hmm. ba ko dafa gënë jëkër yi jëkër yi dëgër bop ñëw fi ma jël sumay bagage def xaj bi ko doon gént ci guddi gi mu yuuxu ci biir bi commencé fekk jabar ji daw bàyyi ko fi hmm? loolu wóor na sama bay bark sama bay ñepp seede nañ ko lu mel nonu nag mën nee la duma wax nit dem nga yow yaay waxal sa bopp li ngay def yow yaa koy waxal sa bopp. yow da am lay def. après moom mu def avo bi. mu def mu avoué. mu avoué mais pour seen nit muy dem rek nga ne ko dem na loolu moom wóorut. dëgg la loolu moom nit ku baax sax waru koo def. Mhm. waaw. Mhm. lan mooy différence su rab lu ñuy woowee faru rab ak jinne. bon euh, ñàkkam xam-xam la rek mais benn la. Mhm. jinni mooy rab comme ni la ko wax. dafa am jinni ju baax. ak jinni yu bon. comme nit ñi rek nee sax ñu naan ay nitu saytaani mooy nit ñooñu nga xam ne dañoo ànd ak dara dëgg waaw jinni nag moom mooy mooy mooy rab léegi boo ko xoolee li ñu naan tuur waaw tuur tey boo koy jàngat mhm. eh, da mel ni mhm. jël nga eh, ndaa bi dëpp ko mhm. jël kuur gi samp jël ci nii samp jël béjjën yi samp comme façon nii mais euh, dangay jël soow noo koy def tuur ko ci kaw waaw ah boo jëlee meew tuur ci kaw nga jël ndox tuur ci kaw nga jël soow tuur ko ci kaw xam nga dafay daal di tuur tuur waaw waaw parce que loolu euh, nga jël dugub bi tuur. tuur bi ah tuur bi moo la ah, ful tuur bi kon nag tuur. waaw d'accord. ah loolu <laughs> moom leer na. Euh, leer na waaw. léegi nag. Hmm. boo déggee nag ñu naan rab bi. Hmm. parce que jinn bi. Hmm. moo dugg rab bi. xam nga lu muy dugg. moo tax ñu dañu naan seen rab bi de mbët la. Ah. ñu ne seen rab bi bar la. ok ñu ne mboot la ñu ne fas mooy rab bi. ah ñu ne mbëtt la. Mhm. ñu ne ginaar bu xonq mooy seen rab. mooy ndax loolu dafa bokk ak rawaan wala. non may ma ma expliquer. Mhm. léegi nag. Mhm. jinn bi. moom mooy dugg bar bi. bar bi ñu ci tuur yi. Ah. am na lu mu soxla. waaw am na lu xew. ndax kii ay dëmm ko jàpp. te dëmm yi dañu tuur fay jinn bi. jinni bi nag mu jàpp ko léegi nag bu xamante ne nag ñoom dem nga ci ñi nga xamante ne yàlla may na leen ñu xam luy tuur yi yor ko ci seen maam rab bi bu fekkee dañu naan nañ ko reyal béy bu ñuul mm-hmm. boo reyee béy bi jël deret ji ak soow bi foo koy yóbbu ci tuur yi mm. léegi nag nga fekk fa barba ah. léegi nak bo tuuree nak bar bi di sangu ci tour yoyu dem yoyu ni tok ab seven waji wer ñu gëm ne rawan bi moko ñu gëm ne rawan bi la te évidemment mom la ndax bo demee ci soti wul nga dem ci soti wul nga dem ci soti wul muy faat ñu bari te ku jaar ci li nga wer hmm. bu yagge bo fa jaarul da nga xaru mo ça sanar yena à ak dé <laughs> ah ah lu am importance ngay wax eh, ndax ndax rab yoyu nag dafa bok bu parce que tamit am na ñu wax rawaan voilà merci mhm. euh, ba yi dañuy jaxase mhm. ak jinne ak ah. nga rawaan dafay mel ni comme takkandeer rawaan na koo am moom waaw takkandeer la rek mhm. kuy tëdd di gént di yeewu dara di xew nga koy gént di yeewu sa rawaan la ah. mais loolu ça n'a rien à voir ak lu ñu naan dëm ak jinne xam nga takandeer te mënut ta tàggoog moom ba nga juddoo rek nga amee mhm. rawaan mais rawaan yooyu mhm. eh, dafa mel rek batterie ci biir nit bu mhm. am courant too xam fu courant bi nekk mais xam na ne moo am na courant ci biir yow xam nga ne boo maree ba xuloog nit sax jàpp nga ne su dee sa doom sax da ngay jékki-jékki rek mer-mer boo xamante ne loolu bii dee rawaanam yi jóg nañ tey parce que diw dañ ko tooñ dañu toj xolam rawaani jóg bokkul moo tax dëm bokkul ak yu ñu naan rawaan yi. ok rawaan ñëpp ko mën a am. dëgg la. ku mën waaw. ku ne mën naa ñàkk am rab. waaw rab. voilà euh, rab tamit ci wax nit ñi da dégg tamit ñu naan diw faru rab la am ñu naan ñi euh, coro rab la am la mooy différence bi. waaw benn la rek. kii de doon ku wóor kii ki doon ku jigéen mais maanaam boo ne faru rab mooy jinni la waaw yooyu nag ñaareel pour nga xam ko mhm. borom buy nelaw mhm. dafay gént bu dee ko jigéen ki dafay gént nekk ak góor waaw ñaareel sax dina ko def sax ba bu ëmbee bu géntee loolu rek mu yàqu alors loolu dafay daal am ba den yaqku parce que day tëdd ci la la melni jigen la nekkal ci bir neega wala bu dee ko goor mu melni ni la nekkal bu dee jigen melni goor la nekkal lolu mom lañu nan faru rablam la bu lay dal jigen bu sey ak goor bu yewé fi lal bi du ko gis na japp ne faru rab am mën nako fajj bu fekkee goor ah, luñ mën a la wa luñ mëna fajj la mhm. parce que rab dafa melni rek jaan bu nek ci garab wa nga jéet produit bu muy bañ nga koy sotti ci garab ga bu yagee jaan bi day dem loolu moo tax ñun dañuy jël ni ay garab jox la nga koy sangu pour rab bi abandonné la parce que arrangé wu la hmm. moo tax nga wut looy sangu pour rab bi mën a dem mbir mi noonu la dem waaw parce que am li tax ma koy laaj man dama man loolu moom gis naa nit koo xamante ni daal ay mbiram dafa dëgër lool lool lool moom daal lu mu mu am da dugg daal ba am ci njortu sax bu rafet. dafay yàq ah, ak bu am solo. léegi nag ñu ne ko ñun benn mag na ma loolu da koy def loolu ndax yow mën nga ñu kaa firndeel. waaw rab da koy def. rab nu mu koy defee mooy. Hmm. comme par exemple yow. Hmm. soo demoon ci entreprise bi. mu hmm. ne la boo demee ci directeur diw. dina la jël. nga bind lettre dugal. kay jël. ñu ne ko jëlal ma diw. sa tur bi naka la. Amadou Seck mu ne Amadou Seck. Mhm. jëlal ma ko. Mhm. nga bind lettre bi dugal ko fa. Mhm. léegi nag waa ji bu jëlee lettre bi. wax ak yow. du dem këram. rab bi indil ko gàllankoor balaa muy am këram mu mbëkk nit wala mu mbokk dara mbaa mu yàqule. ok uniquement pour waaw léegi nga ne ko suba nga ñëw ci bureau bi le lendemain ah, nga feebar. mbaa nga am dëj mbaa nga am beneen mbir. foog daal mooy indi gàllankoor. waaw léegi nag da ngay dégg nga ko diw daal saa yu ma ko fixé rendez rek ma am problème. Mhm. bu yàggee bu la nee secrétaire bu wootee ne ko Amadou la sax di daan woo ne ko nekk fi. Mhm. parce que comme saa yu fixé ak yow rendez rek. Mhm. bés boobu am na problème. day dem bi say mbir sax dootu ko. sawar pour mu dugg ci. foofu dina ko def aussi ngay wut soxna. soo demee doxaani waxtaani. Euh, su guddee. Mm-hmm. su guddee. Mm-hmm. dañuy dal di euh, def gént. waaw ñëw ci ndaw si. Mm-hmm. sople ko mbaam walla fas wala beneen mbir tiitalaate. bu ko defee xale bi bu yeewoo day naan man de damaa gént diw di matt sama tànk bi biig xam nga boobu moom ngoro moom am na problème. ok am na problème. loolu lay def pour. toujours lu ñew rek mu encore la indi la ci ki daf lay encore toujours lolu rab la lolu aussi ci xobu garab rek nga koy faje ci xobu garab waaw wala ñew parce que man lepp ci xobu garab la koy def deug la waaw deug la loolu am na solo voilà léegi nag dañuy ñëw jublu si si li nga xamante ni moo ñu tax a jóg <laughs> loolu nag mooy yow loolu foog naa sax yow yaa ko waxoon mhm. euh, ba nañ ci fexe génne ci ay matu def ci ay matuwaay yu ci mel ni sarax ak yooyu liir nañ ci benn article boo xamante ni <coughs> daal dañu ne ay jinne daal ñoo ñëw dugg biir Sénégal jóge ko ca biti Sénégal maanaam fu mel ni Côte d'Ivoire euh, fu mel ni Mali ñëw Sénégal indi fi daal ay xew-xew yoo xam ne nii daal kenn xamu ko moo waral euh, jëy yu bari yi ñuy dégg fan yi di fi am ndaxte xam naa ne booy déglu rajo wala ngay lire journal ñàkkul ngay dégg ay dee yoo xam ne daal yu doy waar la ñii si ndox mi ñii si safara si ñii ci yoon yi accident yu bëri loolu yow nan nga ko jàngatee ak sa xam-xam. bon loolu damay commencer rek dalaat ci euh, yéen journalistes yi. waaw dafa am ay médias yu bëri yoo xam ne moo jar di jàllale. waaw mais dafa mel ni. ñoom daal. mbër bii mooy daan mbër bii. wala mbër bii mooy yéeg. loolu gën a intéressé. wala président bii mooy wàcc. bii mooy yéeg. Mm. loolu mooy problème bi. waaw day fekk rek lépp ci actualité bi la bokk. ah waaw mais nag yooyu a bari. <laughs> ñuy junj quoi. Ah, ah. ndaxte boo ko xoolee. Mm. ci xoy yi ñuy def. bu ñu dégg ma lay xoy mi. Mm. man toog naa barki sama baay. te man amul dara lu ma jaral di fenn. ay kilifa ay autorité yu yu rëy mhm. nekk ci digg bi nekk ay responsable waaw digal naa leen ay sarax mhm. te ci xooy bi nee naa leen ne yéen ay affaire ay mandat di way yéeg mbër bi mooy daan ma ne loolu intéressé wu ma mais safara bii ma gis muy ñëw hmm. ak ndox mi lu mu war a yàq hmm. nañu génn sarax yi ko war a aar mais hmm. ñu ci gën a bari farlu ñu ci loolu dëgg la ñu gën a farlu daal mooy kii mooy yéeg kii mooy wàcc façon boobu kon maanaam yow safara yi lakk yi lakk eh, takk eh, nu ñu koy xeeti eh, safara yu bëri yi di am lakk yu bëri yi di am yow gisul ko leer nañ nañ nañ nañ nañ sama baay wax naa ko ñu bëri bu mu leer nañ mm-hmm. te wax nii mm-hmm. barke sama baay mm-hmm. dama koy wax mu leer nañ batale joolaa dama leen ko waxoon mu leer nañ nañ nañ nañ hmm? ak ay kilifa yoo xam ne dañoo war a dëggee di àdduna te mënta ñàkk lu bari danga koy leeral. ay kilifa yu génn àdduna te mënuñu ñàkk génn àdduna jeex na daal waaw yooyu koy leeral moo tax li am na solo li waral jinn yu bon yi dugg ci réew mi kon yooyu jinn yu bon yi ñoo ko waral ñoo ko waral xew-xew yu bari yooyu jinn yu bon yi daaka bi ay jinn la lii du négligé de. Hmm. ay peine de mort bi ngeen di du loolu. du nit ñi dañoo respecteetul aada bi. waaw. dañuy bëgg jël aada bi ak diine bi jaawaat la ko te du benn. Hmm. nit mën naa topp aada te terewul nga nekk jullit mu dimbali askat yi. Hmm. ndax. lu bon lu nekk ci àdduna am na lu koy saafaara te mu ngi ci wetam mais bu ñu bàyyee nag lu bon de mënuñu koo tere mhm. te bugg a dindi lu koy saafaara ñu bugg ko fee jële du sotti man gis naa boo demee fële géej suñ dëkk yooyu waaw gis naa fi ay garab yoo xamante ne bu fekkee ay njéeréer dañ doon dugg si ci dëkk bi mhm. waa dëkk bi bu ñu dajaloo foofu ñaan mhm. sotti ndox toog fa ceeb toog fay laax ñaan yàlla njéeréer yi dañuy continuer dootul ñëw mais dangay gis benn chinois jóge fële wala benn naar wala benn espagnol ne dafa soxla fii ñu jël àll boobu yëpp garab yu baax yu nekkoon garabu cosaan yëpp ñu daaneel leen du laaj xanaa sax kër boo ko buggee daaneel mm-hmm. da ngay waa kër ga ah, ñooñu ñoom itam mm-hmm. ñoom ñu waaj mais boo ñëwee ak ay bulldozer rek fekk këru jàmbur gune yi di nelaw ñëpp di nelaw nga mm-hmm. rajaaxe kër gi mais garab yooyu ay kër la woon ay këru jinni la woon mm-hmm. jinni yi dëkk fa mm-hmm. man mii di wax yow dem naa ci ngeen tey jinni xam nga loolu doy na waar yow mi <laughs> barki sama fa ah fa ma sàmm géej dëkk tudd géej dëkk géej la tudd waaw géej fu mu bu gëñu naan ñoo dans le département de Mbour waaw te dem ngeen tëj gi waaye du benn yoon du ñaar yoon. ba nga demee loo def. ah nu ay nit ci àll fi mooy sëm mooy dañoo am ngent tey kaay kaay kaay fekk ngent bi. ma ànd ci benn garab bu yaatu ma fekk fa ay nit yoo xam ne bokkuñ ak nit ñi ma toog ma lekk. ñu ngi gis foofu am na ñu weex am na ñoo xam ne seen sikkim yi dafa gàtt ñu yor ay tuba yu gàtt xam nga. lu leer nañ laa la wax leer nañ. <laughs> waaw mu ñëw yi. après. ma toog ñu dégg laax ba yëpp ma lekk ma ñëw si ma wax ko suma yaay mu ne ma yow dégg ma jomal di yow fan nga demoon. si laaxu jinne nga lekk. ñoom ñoo ma toog. invité ma. ñoom seen laax xanaa niroo ak laax. <laughs> waaw. <laughs> lan mooy différence bi laaxu jënd ba comme léegi laaxu jënd li ñu wax laaxu jënd nan la wutee laaxu nit. ah loolu lu leer nañ la ah lu leer nañ laa la wax ni. voilà ñu ngi garab yi ci actualité bi waaw waaw merci beaucoup mm-hmm. bu ñu demee nag ba ci biir àdduna nag mm-hmm. garab yooyu nga xamante ne ay garabu cosaan la woon ñu ñëw daani yëpp basé wu rab yu bon yi xam nga rab yu bon yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew. Mm-hmm. war a ñëw ci réew mi. Mm-hmm. dafa mel ni rek ay soldats yu dëkk ci réew. Mm-hmm. nga fël fii rek bugg a dëkk gànnaar. soldats yooyu dañ lay di stock. waaye bu fekkee ne soldats yu gànnaar yooyu gis. naar yi fa nekk ak joxuñu leen ful ak joxuñu leen benn fayda. bu ay soldaar jugee fi ñu dugg ci réew moomu soldaar yooyu ñoom pat la def xanaa ñu di leen jéem a jàppale sax. ci jëye bi. loolu mooy problème bi. actualité yi ngeen di dox ak nangam nangam il faut que ñu fonk rab yi. respecté leen respecté leen boo dematee ci village. fekk fa ay nit. ay maami maamaam fam nekk fa. même boo nee yow yaay yow yaay euh, yor département boobu. soo soxlaa foofu moo xam sous préfet nga ak loo mën a nekk. Mm-hmm. conseiller ak loo war a mën a nekk. Mm-hmm. da ngeen di dajale village yi. ñu won leen. fii lii moo fi nekkoon fii lii moo fi ngeen seet loo xam ne kenn waru koo mën a laal ñu bañ a laal loolu li nga xam ne jàpp nañu mën nañ koo laal ñu laal loolu mais bu ñu buggee maasale lépp du sotti waaw léegi ndax mën nga wax yow si xew-xew yooyu nan la ko jinne yi sookee fu si mel ni par exemple lakk bu métti bi mujjee am ni parcelle juróomi doomi xale xale doomi doomi xale ñàkk seen bakkan waaw nan la jinne mën a sookee loolu waaw jinne hmm. day naawal safara dugal ko ndax jinni kawaram yépp safara la hmm. jinni hmm. lepp lu muy jey yépp lu muy def hmm. ci kawaram la koy def waaw jinni mun na xeytal ala bi su meree te lepp ci melokan kawaram ci la koy def waaw mais fi dañ ne nit mo taal sondel ci nek ba de waxuñ ci ne mo wa mais ken lo fekk bu nit ki taal sondel ba loolu ay wax la rek ah dëgg xam gis nañ ko di. ñoom gis nañ ko ba wax pour bak santam. waaw mais loolu dañuy wax rek bu ñu gisoon ba moom koy lakk. dangay ñëw ba. waa ji fa mu ba xamul ñu yëkkati sondeel ba ah jël sa sondeel teg ko ci sa kaw matelas. man nii yëpp kii moom nee nañ xel mi man man man nii di sama jabar. ah taal na waaw tëdd ci néegam ko fee hmm. boobu coupure bi day am waaw ma toog hmm. fi ma toog hmm. ba benn mbir feeñu ma ne ko demal sa kër gaa ngi lakk barki sama baay bu ma ñëwee di dugg ci biir néeg bi waaw sama dooma ngi ci biti mën nga ko laaj mu wax la ko damay dugg nii rek gis matelas bi di tàkk ak darab bi yëpp di tàkk ci seen kaw te fekk moom mu ngi nelaw ak ñaari doomam moo def suma lakk-lakk bi maa jël matelas bu bicc kook affaire bi mënatuma koo fay ma daw moom ba ci diggi kër gi ma sànni ko foofu dagg rido bi bu ma wooyee ma ne ko yow tax ngay tëdd teg euh, bi ci kaw lal bi mais dem ma waatal ay bakkanu njabootam mu ne ko sondeel bi fu mu ko tegoon mën ta ah. <laughs> bu ñu teg fële mu ñëw ci kaw lal mais loolu loolu loolu kii la yow kenn doful. jël sonal bu lay ray tek ko fi ngay tedd mën na ko tek fu suri mais xam nga jëy bu amé katal sondeel ba rek mom lañ koy jëy fi la ko tegon fa la ko tek ken du la gëm ndax bala ngay gëm sax nga gëm lu fi nek wa léegi bi ci ndox mi nak bententi ñu tok bententi ben dekk la fële suux am fu bu metti ay jigeen yu bari ñak seen bakkan fofu fo na ëpp na sa ñaar fukki nit wa nonu yëpp dañuy wax ay mbiru yalla la wa mais bu fekkee ne aussi da ngeen yàq këru jàmbur toj ay këru jàmbur ñoom itam dañu seet rek fa mbooloo ba gën a bari rek mm-hmm. na nga yàqe woon seen kër rek mm-hmm. ñoom itam ñu jublu pour yàq rek seen toogaay loolu moo tax toujours man jinne yi laa ko teg te lu wóor nañ nañ nañ laa ci am ku yeboo gëm ku yeboo bañ a gëm mais noonu la demee mais ko bëri gi ak yi agression yi jinne ñooy dugg nit ñi bi nga ñëwee wanu ma vidéo bëri nit wax waaw naan nga ah? wax maa rey kii maa def lii te ñoom dañu ne woon ndaw soosu dëmm la mais nii daal du dëmm mais bu mu ñëwee leeral naa leen du dëmm suur nañ fii nit ba nit génne ci ci sër bi ñu ko doon suulee naa génn boo génne laaj ko booy ah te koo xam ne dafa nekkoon dans ko coma nit wësi na fii nga toog am doom men fii parce que sama gars yi boo génnee laajee nit am doomu nit non do minute normal mais nit ko lu ko jalan ab dama ko jàpp dagg corde ko ay sóor gu def ci bakan bi def ci ki bi mais man itam dama ko wo mu ci biti ma ko xale bi dama budde ma lu la fii hmm? waaw mais ba mu jëlee ndox ray xale bi ci tanga bi dafa juddo fi mom mo jël ndox ray dafa jël ndox souf li ci biiru ndaw si ak moom ak yalla ci biir neeg bi waaw ñaari nit amee nañ doom fi ñett sax laa lay wax. comprendre ma. waaw soxna si dafa ëmb. dem ma jàpp ko freiné ko mënut a am doom. dafa doon wasin mënul nekk biir bi da metti waaw te doom bi motagul. waaw indi ko. ne biir bi day metti docteur yi gisuñu dara. waaw ba ma xoolee xam naa dama ko jàpp. waaw kii ko jàpp mu ngi ànd ak ñoom. Ah? waaw ca ko woo ma ne ko dama lay bañ a weer. mais xale bi mu ne xale bi de kon xanaa day juddu ndax corde bu nekkoon ci bakkat yi man dagg naa ko. kon xale moom juddoo dund. non dund na parce que bu mu ko daggee boobu moo tagul woon deegul woon mais bu yàggoon day dee ci biir ndey ji ndey ji dee encore te loolu yëpp dañ ci war di gëstu. jinne yi. léegi ñoo jóge dëkk yow doomu boobu nga xam ne ko yow kii yaa ko jàpp ba ko mu am doom. mu jël ndox sotti ko ci biir xale bi xale bi aussi. dafa fudd rek man ma jékki-jékki ñëweetuma ndax damay jékki gis doom bi génn man dama foogoon sax biir bi moo xar comprendre ma woon mais dama jékki rek mu yuuxu rek te saare tànk yi doom bi génn fii am buub ñu laxas ma dawoo jigéen ñi nekkoon ci biti comme ñi nga fekk nii ci biti rek ñu daw jëm ci hôpital gi hôpital euh, Samy gi. Hmm. la ñu dem jël fa ñaari sage-femme ñaari femme ñëw. ak yeneen man bugguma dee wax ay tur sax hmm. xam nga dafa xaw a doy waar. dafa xaw a doy waar maa ngi jégalu sax. waaw maa ngi